donc dañ fi ñëwoon tey ci turu maire de la ville de Thiès Talla pour ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne nii moo ne ci réew mi nekk ci àdduna muy mbas mi nga xamante ne nii dafa tàbbi ci Sénégal ñu ñëwoon fi nag tey xëy na xool seen toogaay gën leen ñaaxit ci mesures yi nga xamante ne ni war ngeen ko jël ba feebar bi bañ a jaar ci yéen ndax euh, marché dafa nekk euh, bërëb boo xamante ne ni toujours nit ñi dañ fiy daje nit ñi bu ñu xëyee dañuy ñëw di jënd si ñëw fekk leen fi yéen jaaykat yi ngeen war leen a jaay ah ci jokkaloo boobu nag dañu war fexe ba mbas mi du fi law ah loolu nag pour mu mën a ne il faut donc ngeen xoolaat seen toogaay ci biir marché fexe ba respecté li ñu tuddee les mesures barrières yi nga xamante ne ministre de la santé moom la digle mesures barrières yi nag comme dañuy wax contamination communautaire li ciy jiitu fi toll nii mooy ñu sol masque ndax. toll nañu foo xamante ne ni jàngoro ji kenn xamul ku ko yor ak ku ko yorul moo tax ñu war a farataal sol masque kuy génn sa kër di ñëw ci marché fexeel ba gànnaayoo sa masque sol ko boo ñëwee ci marché bi ñu fexe ba di soreyante wo lu bon bon mètre di dox suñu diggante ak ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy waxal nuyoo bi moom yaakaar naa ne bàyyi nañ ko yàgg na raxas loxo it dina ci baax bu ngeen mënee it di gànnaayoo ay gants comme yii nga xamante ne nii da ngeen di jokkalante xaalis loolu yi dina ci am solo ba loxo yi du laalante xaalis bi it ku ne xam na ne ci loxo yi muy jaar bare na heure bu jaaree ci seen loxo ngeen jéem a fexe nu ngeen di raxasoo wala nu ngeen di jëfandikoo gel hydroalcoolique di leen ñaan rek ngeen gën a yokk góorgóorlu parce que marché bi sax gis nañ ne. daanaka daal ñoom ñi ngi gor góorgóorlu bu baax ci sensibilisation bi ñi ngi takk seen masque et puis ñi ngi également di soreyoo bu baax donc loolu aussi dañ leen di gën a ñaax rek ngeen ko koo fexe ba daal vraiment feebar bi du law ci biir marché du law ci ci Thiès. waaw ñu ngi leen di sant rek ci taxawaay bi ak kii bi ndax euh, wolof daf ni ku la ni sangul sa taar la bëgg ah ku lay dugal ci loo xam ne da lay may wér nag moom kooku vraiment war nga ko sant bu dégg nañ leen gis nañ seen taxawaay depuis ñoo ngi leen di déglu di leen suivre. tey jii 2 euh, mai donc 2000 euh, 2020 dañu ñëwoon fii ci marché Grand Thiès bi pour sensibiliser ci affaire coronavirus bi. tey nag boo xoolee situation bi nga xamante ni ministère de la santé joxe na ko mooy 91 cas am nañ ko maanaam téeméer bu manqué juróom-ñeent loolu benn aspect la beneen aspect bi mooy ñaari weer yi nga xamante ni ñu ngi def liggéey bi gis nañu ni euh, la amoon ba ñu commencé fukk fukk ca am na. donc ça veut dire que tey jii af situation bi doy na waar ministère de la sante ñoo ngi leen di gërëm ci li ñu li ñu def waaye nag ñun ñëpp dañ cee war a jàpp looloo taxoon tey ñu ñëwoon fii Grand pour sensibiliser li ñu seetlu Grand nag mooy nit ñi alhamdulilah ñu ngi commencé utiliser masque yi maanaam ñi nga xamante ni moom la ñu gis te yoruñu masque bariwul mais sensibiliser nañ leen bu loolu weesoo yi tamit dama bëgg a wax tuuti ci li nga xamante ni moom la délégué de délégué marché bi ak adjoint adjoint mi wax euh, maanaam ci wàllu euh, ni nga xamante ni acteurs yi ñu ci associé ñu ngi koy xamal ni lépp li mu ñu wax ci doléance dina egg ca kilifa ga waaye ñu ngi koy xamal ni tey aussi dañoo ñëwoon ci marché bi ndax solo gi ñu am ñoom te ñu ñëw jaar ci moom donc ce qui veut que donc lépp lu ñu wax dinañ ko yóbbu fa ñu ko war a yóbbu wax nañu aussi. tey ñu ngi woon marché Grand Thiès ci toujours ci logique gu sensibilisation bi ñu doon dox Thiès. commencé woon nañ euh, marché centrale tey ñu ñëw ci marché Grand Thiès mais li ñuy rafetlu marché Grand Thiès mooy commerçant yëpp d' accord na ni port de masque bi léegi lu obligatoire la mais leneen li nga xam ni dañ koy félicité taala mi nga xam ni dafa lëkkaloog ñun ci sensibilisation bi ba ñu ñëw fekk point de propriété di def même liggéey mooy ñu distribué leen ay flyers distribué leen ay masques pour ñëpp jël seen matuwaay. Thiès mu ngi ci point boo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla parce que point bi ñu nekk nii point bu am solo mooy sensibilisation bi ñu duggee biir marché gis seen majoritairement ñëpp sol leen ay masque di leen fàttali di fàttali suñu bopp geste barrière yi ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen di respecté distanciation sociale bi di raxas seeni i loxo ba mu set raxas loxo ba set mbaa ngeen di utiliser gel yi loolu daal moom lañ ñëwoon doon leen ko fàttali di ko fàttali suñu bopp képp kuy jënd si jël say matukaay kiy jaayit jël ay matukaayam loolu rek moom mooy tax ba feebar bi man fee sori. ñun dañ fi nekkoon nekk ay jeunes di représenté waa UCG unité de coordination de la gestion des déchets solides mu ne ngir mën a ñaaxaat nit ñi sensibiliser leen à ce que ñu respecté mesures d'hygiène yi nga xam ne euh, ministre de la santé et de l'action sociale joxe ne ko. ñu mën di moytu di respecter mesures d'hygiène yi pour ñu mën a àndandoo ñu ñëpp booloo xeex coronavirus bi ngir mu jóge ci réew mi ndax gis nañu ka nekk na feebar boo xam ne mayu ñu benn temps boo xam ne war nañu mën a génn dox suñu activité ñu mën ngir ñun ñëpp daal ñu mën a fagaru éviter propagation bi daal puisque cas communautaire yi mi ngi yokk ñu mën gën a jàppalante suñu biir respecté mesures yi daal. si nit ñoo xam ne comprendre feebar bi daal. gëmuñu ko et puis tamit comprendre lañu ko mais li ngeen def nii vraiment tout rafetlu te ñu ngi leen si remercier bu baax surtout nag ñëw ngeen fi ñëw dem baax quoi dina xaw a sensibiliser nit ñi di bëri quoi. sama mbokk commerçant yi moom dama leen di xelal ñu gën a moytu di gën def attention parce que soo déggee docteurs yi ak gars yi li ñuy wax nee nañu presque ñu muy gën a laal mooy commerçant yi waaw ah, parce que tamit jokkalante beeg joxante xaalis beeg yooyu yëpp si xaw a waaw moo tax daal nañ gën a éviter di jéem a gën a xoolaat seen bopp daal di gën a moytu jël gel di laal koo jaay su la joxee xaalis soo dugalee sa kees jëlal sa gel di laal xam nga gën moytu quoi parce que tamit bon fagaroo gën euh, kii quoi. ndigal moom jëfee la tudd gannaaw ndigal nag mbugal te kenn bëggul mbugal kon nag gannaaw ñun ay liggéeykat lañu te lañu bëgg a wér ñu jéem a sàmmoon teg li nga xamante moom la docteur yi ah di raxasu di sol masque di di wattandiku sa jagayoo bi daal di sàmmoon teg di docteur yi wax loolu daal laa nga xam ne di ko digtal yëpp di ko digtal daal képp koo xam ne yaa ngi dégg teg di docteur yi parce que li docteur yi yàlla ci boppam moo ko santaane yàlla nag lépp lu mu santaane amul en tout cas da ngay def la mu wax rek boo ko boo ci ko génn kon nag yéen tamit ñu ngi leen di gërëm di leen parce que lii ngeen def lu baax la parce que lii mooy sensibilité nit ñi moo tax nit ñi di mën mën a wax seen xalaat di a wax seen soxla di mën a wax nga xamante ni moom la ñu def ñu ngi leen di gërëm di leen sant daal di encouragé ñëpp daal ñu ñu jéem a xeex ak bi daal ba ba jéem ko daan daal